salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi bëgg bokk ci di bëgg a participer si seen uh, kii bi ngeen di def nii neex na trop macha allah ah, yàlla jëm kanam ci barke yonent bi ah, di wax ni série bi la maîtresse l'homme marié ah kontaan nañ si daal mais tamit laal na na daal parce que tamit suñ ne grande dame grande dame dafa war a wane boppam ba mu jeex parce que su gëm mareem na daan na ci daan na ci kanamu mareem cheikh yoo xam nga lu charia wax parce que su ne xam nga li charia wax mu bàyyi ba cheikh dem aaye feneen si moroomu nawleem mu koy jéem a di yóbbu doomu hôpital ak di jéem a def ay caprice loolu grande dame du ko def na di mel ni meloon xam ne Marème rakkam la mu uuf ko waane li ma gën a enquêté wu mooy Bakri mais Bakri moom fu nekk loxoom taq na fa parce que ni ma gisee série bi passé numéro 36 euh, pap kiñ ne moo violé Racky violé wul Racky kon Bakri moo violé Racky ñu jël affaire bi accusé ko baay bi pour baay bi dem tëdd kaso parce que biir wax maire bi nee na ko lii yëpp yaa ma ci dugal parce que tamit paa bi de retouram du yombu ci Bakary du yombu ci maire bi mais nag damay ñaana waa série bi yal na jëm kanam daal neex na trop man ñun ñi nekk bitim réew nekk fii Italie vraiment mi ngi dindi suñu stress kenn stress seetul soo liggéey ba wàcc da ngay daan toog kër yi di stress mais daa vraiment ñoo ngi liggéey di wàcc ñoo di ko di concentré wu di ko seetaan macha allah daal mboroo di ca kaw ca kanam yéen daal. seen borodi bi ngeen di wax daal yéen daal ay gaynde ngeen macha allah séeréer bi ñoo dàq sa morom macha allah mais nag euh, xaritu jalika boobu ah lu loolu ñu joué noonu lu am ba mu jeex tàkk tàkk tàkk te dama ko gis dama ko gis kuñ ko def mais nag luy mbirum àdduna la parce que série bi daal li ñun sénégalais yi di dund ci boppam moom moo nekk ci biir série bi série bi daal su ma gisee ku koy critiquer daf may jaaxal waa nag comme que dañoo nekk si pays dëkk boo xamante ni nag dëkk bu bëri critique la bari li ñuy def parce que nit ñi dañoo am jot comme su meloon ni comme Europe bi xamante ne kenn koo xëy yaa ngi daw wuti loo am doo tala toog di critiquer kenn nit nag day juum ndax juum te fépp lay am mareem xëy na loolu rôle bi muy joué loolu lañ ko jox ta rër biñ ko jox matala na ko sëkk matala na ko sëkk waa nag juumtayel des fois day am parce que nit ki su juumee xëy na loolu ngeen loolu mu def li ngeen wax dana tax mu gën a defaraat toogaayam mais daal série bi neex na macha allah.